ci rationalisation bi ma la junj tout à euh, maanaam yaxanal alalu réew mi gis naa sax tey président def benn décret euh, dissoudre euh, commission dialogue waaw dialogue des territoires mm-hmm. c'est vrai que noonu mu ko defee mënoon na ko def ci yeneen yi ah. parce que non xam nga lële décret la d'accord yi ay loi la mais pourquoi mënul dem assemblée nationale pour def ko fa pour demander ko ñu xam ni sax am na volonté loolu bokk na ci li nga xam ne waxoon na ko cest à nga jéem bu baaxee baax na su baaxul ñu xam ni baaxul c'est-à-dire pourquoi jéemu ko ci yeneen yi loolu laa loolu laa bëgg a xam. léegi xam nga nag yow yow yow da ngaa généré parce que da nga baax danga fi gis ay leader politique duñu ay leader politique parce que ku munta am parrainage doo leader politique bu sérieux ñu bind seen page Facebook ne ñoom président daal bi dafa war a dissoudre HCCT lu tax gaaw ci ak conseil conseil économique social et wax dëgg yàlla nag loo gàtt gàtt xam-xam war ngaa xam ni. sa bugaan assemblée nationale moo ko mën a def. loi la mais loi constitutionnelle la. xanaa nag constitution même boo tayalee lire parce que am na ñoo xam ne moom am naa duñ gëstu ñaar wala ñetteelu page bi rek nga gis article six ne la constitution institution yi la wax pour réew mi président de la république assemblée nationale gouvernement tuddal la ci HCCT ak conseil économique social. il faut nga am majorité trois cinquième des députés quatre vingt yow gëm nga ne député Benno Bokk Yaakaar yi ñoom ñooy voté projet de loi pour na ma yàlla baal li ëpp ci seen militant mun na am clientèle politique nañ ko war a mun tuddee yu nekk ci institution yow pour ñu jëlee leen fa. lu nekk boo koy yëkkati da xam mais pourquoi pas loolu duñ ko def duñ ko def parce que waxuñu ko ñun ñoo ko wax suñu gis-gis du seen gis-gis. ils ne sont pas d'accord sur ça c'est nous qui d'accord sur ça. dinañ ko yëkkati ci moment bi mu opportunité président de la République dina ko def. parce que engagement. kon loolu moo tax PM looloo tax premier ministre nangu fa dem déclaration de politique générale. c'est-à-dire. non loolu moo li nga wax. premier ministre da koo bañ non non non majorité bi nga xam ni. kon nangu nga mais mais de prime abord ngañ. tu reconnais que ngañ. loolu mënaguñ ko def matériellement. Oh, oh. président li mu mën a def la dindi. ma ni léegi yow doo saluer maanaam man. maa wax ne damay dissoudre institution yu amul njëriñ ma dindi benn parce que moom laa am mën a jël par décret yeneen yu ma mën a jël décret yëpp dinaa ko def ah, d'accord am boo xam ne assemblée ko war a def nga taxamu naan ma la moo tax defagoo boobu te nga xam ne assemblée moo ko bëgg a def alors léegi Ngagne c'est incroyable d'accord Ngagne <laughs> merci beaucoup léegi Ngagne mauvaise foi ak gàtt xam-xam mënut a weesu loolu Ngagne non ci ci kan mauvaise foi ak gàtt xam-xam waxuma yow d'accord léegi non oui non Bougane Gueye Dany c'est un acteur c'est un acteur médiatique sénégalais léegi ma ni un acteur économique cool s'il vous plaît <laughs> s'il vous plaît d'accord c'est bon léegi da ma wax tout à l'heure ni ma du waa Bokk Yaakaar ñooy voté luy taj luy tas institution yooyu parce que ñoom ñoo fa majorité